الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن شيخنا ومولانا أبي العباس سيدي أحمد التجاني وعن وارث سرهما مولانا شيخ الإسلام وبركة الأنام سيدي الحاج إبراهيم نس ابن مولانا الحاج عبد الله التجاني الكولخي يا همة برهامنس احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر وبعد مبكي ماغي لين دي زيارة دي نيو نيب دي لين بيغي دي واخ رك ني درس بيغا خامني موي آه،, أه ما شاء الله رحلة الحجازية الأولى رحلة الحجازية الأولى قمني مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه أه ci moom lañ tàmbali woon ak yéen ñëwoon nag ba Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ci kër maam Omar Kane ca Ndakaaru ànd ak maam Omar Kane dem li jënt ji yañ war a tukkee yëpp ñu ngi amoon ci wahum na fi dalika xaayat shukur yow mi ma topp maa ngi ci page trente deux vingt trois muy euh, twenty three ci page boobu laa nekk ca kaw Cheikh Ibrahima mu ne wa fii yow mi l arbia ci bisub àllarba nag انتصاف شوال تي جيخل ويرو, شوال الموافق ثلاثين من دجنبر لدبوك فان ويري فان تي ويرو ديسمبر ديسمبر كم نيغا قمنا نون لكو انجل دي وخي المسيحي ويرو نيغا قمنا ميلادي لا بنا المسيحي رك مو ميلادي نيون ني ديكو اوهي ويري توباب شيخ ابراهيم انا دخلنا ني دوغو في الباخره تي باتو بي فيري بي al musamma bada bu ñu tuddee bi Canada bato Canada kañ la waxta zawal waxtu zawal mooy waxtu digg njolloor waxtu côté euh, midi une heure ko côté yooyu noonu mu ne waqara na ñu daldi di jàng bañ na yulub ca biir gaal rek waqara na ñu daal di jàng hunaaka foofale al ayat al mutaqaddimata laaya ju jiitu ja laaya ju jiitu ja mooy jan وخرنا لك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون دينكو أعني لمن نمشي لا يجون يقوله تعالى وخيال جمنان وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم لا يجوجو وخون نكو وما قدر الله حق قدري وخون نكو تفيري وخون نكو لا يا باين وودعت نجل والدي مدال تغتوك سما دومي باي خليفته فينا sunu xalifa xalifaam ci ñun xaqan ci dëgg-dëgg kan la imaamuna sunu njiit la alxaaji ababacrin cheikh alxaaji bakar al imam bàyyi ne wa bahjatu baytina ak ki nga xam ne mooy taarab sunu néeg bi wa zinatuhu ba tey taarab sunu néeg bi rek dégg ko wa masaratuna tey sunu mbégte wa masaata addaadina tey naqaru sunu noon yi العلم الأشهر درابو بسيوبي كان لا الحاج محمد زينب ابن الحاج عبد الله من متاغتوك نيوم وبقيه الاخوه اك لي ديس تي بوك يما غونغيون ولا احباب اك سوبي وتلاميذتي اك طالبي والمريدين اك بون طالبي باتاي وكلهم نيوم نياب يذرف نياغاي تور دموعا اي رونقان يو خامني تزري ماغاي نيرو صخ بدموع الصحابي تيرون كان ياموم حسمان سي دوتيلا نيرلا لمفارقتي غير تقلكو غيني تقلكو من daal di jooy fa bukaani jooyloo ma buka arrijaali jooy góor ña dégg nga ko bàyyi ne gaañ a jooy ma jooy ngir seen jooy ya allahu akbar danaay wax nag ne mawlaana cheikh ibrahima radiallahu anhu lu kaay jooyloo bërihut ndax dajee gam dajeeg yonti yàlla muhammad ca Paris ne ra'aytu rasulallahi jëran wa yaqazatan bi baari zahal zakal mahallu mahallu bàyyi jooy na fa jooyu rëy dégg nga Cheikh Ibrahima ak bato bi loolu dana la xaw a samandaay dana la fàttali aj gam ànde woon ak Maulana Cheikh Serigne Mbaye radiallahu anhu ba bàyyi na yulub ci biir bato bi rek Cheikh Serigne Mbaye dafa jël xalimbaam ne ko qultu lil fulki wa hiya fi l bahri tajri fa ruwaydan min bahri ilmin muqiimi dégg nga man mane ne gaal gi ne ko te booba gaal ga ma ngay daw fil bahri tajiri mu ne ko defal ndànk fa ruwaydan min bahri ilmin muqiimi ci géeju xam-xam goo xam ne dafa ne tegg ci sa kaw yëngatuwut te moom géeju xam-xam la dégg nga ko wax ko ca wax yoo xam ne wax yu yéeme yéeme la kon Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ne gaañi jooy mu jooy bàyyi ne wa anshada min nii daal di way nag fi man lisaanul xaali sama làmmañu xaal lan la way falaw qabla mabkaaha bakaytu dégg nga ba ca albaytayni ba ca ñaari ba yet ya sababatan li suda man mukkalu ma ko waaye yaakaar naa la fa qultu alfadlu li mutaqaddimi ba jeex waaw mu ne falaw qabla mabkaaha su fekkoon ne njëkk dégg nga ko bi foo jooyam yi avant jooyam yi ba kaytu laa man dégg nga ba ca ñaari ba yi bàyyi ne wa baada salaati zuhri ndigam ñun zawal lañ départ dugg ci bato bi bi ñu jullee tisbaar ba pare intaqalat la daal di la daal di toxalu nag dégg ko daal di war a embarqué bato bi min mursaha ca lankaaram fam sànni woon lankaaram te mooy teeru kaayam wa jarrat mu direeku daw bina ak ñun xaas diina di aji jublu nag a daaral bayda dégg nga ko daaru bayda te mooy maison blanche dégg nga ko foofu ñoo xam ne moom wax White House ci bil maghribil aqsa ca Maroc bu njëkk ga bàyyi ne bi ñu déparé rek wa warada daal di rot alayya fi man duaa un ak ñaan lan la Cheikh Ibrahima ñaan woo mu ne moom ñaan nga mooy allahuma laka alhamdu dahabtu an jamia ahibai wa dahabu anni qasidan ilayka walfadlu walminnatu laka اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم لي الشيخ شيخ ابراهيم نيان رضي الله عنه ماغي واخني كيب كو خامني ياغي فرال دي نيك تي يوني توكي نيان غو ديغ ني تودو كو في رك خمال ني توكي كاري تست نان كو با خامني دغ دغ امني يو تي لاقاتو تي بير تي اي غنيله كي بونوفيس يو خامني شيخ ابراهيم تودو كو رضي الله عنه واي ديكو جيل رك ديكو ديف بايني اللهم يو بروم توري سليك ملو رفدي لك الحمد سنتي نيال نالا مبولم قاجي نك dahabtu an jamii ahibaayi maa ngi nii di dem walis mboolem su may soppe wa dahabu an nii ña ngay dem walis ma qaasidan ma da aji jublu ilayka fa yow walfadlu ngëneel wal minnatu aqi wala ka ñi hal na la allahuma taqabal minna buur nangul ñu innaka anta samiul alim yow yaa da aji dégg ji mboolem lu ñuy wax yaa da aji xam mboolem lu ñuy ngun nguni cheikh ibrahim ne wa baqaytu ma des ata annasu di wéttaliku bil mushafi ci alquran bi ci téere bi waxoon na la ko إن سري كلام رب المبين أي إله الذي به نستعين من شيخ إبراهيم سممبوت موي واخ يالا جبير جيتا موي القرآن وخونا لا سي بنين وخامن و كنت حروفا عاليات واسطرا فوقعها شخصي متقام مظهرا من منك هروف حروف العاليات حروف عاليات موم القرآن دينغا ما شاء الله شيخ ابراهيم فنين وخونا لنا انا القرآن وسبع المثاني انا الروح لا روح الاواني dégg nga ko man maay alquran te man maay sab'ul mathani man maay ruuxu waaye duuma ruuxuk awaani ndax bàyyi ruuxul maani la alxaaji ma abdu wax nañu ko dégg nga cheikh ibrahim ne wasir naa ñu dox waaye walillahi alhamdu sant ñeel na bàyyi ne wasir naa ñu dox fii lutfin min allahi yëga foofu latif la fa jëwan la fa jëfandikoo téel ma latif de wallahi wallahi téel ma latif laa wax cheikh ibrahim ne ci ñeewant goog ma nga bàyyee koo fa yàlla maa taxarraka yëngatu hut yëngatu gu naqadi albaburu bato bi wala maata binaa jéngut jéng gu ñuy tiit ne dafay daanu waaye nag wali adami mu alafatil baxar ngir ñàkkaa min géej xam nga xala ba waaye suñ sëriñ ñoom ay affaire yu ndox ak sedde yi nii dara lañ ci waxut dégg nga ko ñemewuñ géej bàyyi ne waqaa tàbbina binaa fi ñun shibhu daw xatin lu niru miir ma mel ni kuy miir ma gëmm kagn la la dal mu ne jumaati bisu ajjuma àllarba la départ alxames ba ci aljuma ji ko li dal kon booba ñing ci digg geej ga de nga Cheikh ibrahim na fara aytu masin bul ne ma gis neel masin de nga ko way seen gis seen gis la parce que rijalan aw gor yo xamne hasan ñu rafet ay xarkanam lañ de nga taxawal fofu xamne ñu rafet ay xarkanam lañ waaye nag lam aarif xàmmewuma minhum ci ñoom illa cheikh tijaani radiallahu anhu lu dut sama sëriñ mawlaana cheikh ahmad tijaani wa walidi rahmatullahi taala alayhi ak suma baay alxaaji abdallah yal na yërmande yàlla nekk ci moom ñoom laa xàmme ca mbooloo may dox ci digg ndox ma mbooloo mi nga xam ne ñu ngi dox ci digg ndox ma sol lu weex tal rafet lool waaxu ut si bato bi bàyyi na ma seen leen mu ne ñu ñëw ba egsi si man sama baye alhaji abdullah fa shabaka mu dal di roflante asabi'ahu ay baram bi asabi'i ak sumay baram bim ko roflante manam mu nuyuma wa اقرا جنجل ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا الى اخر باتي موجك لا جي موي نكا يالا دو دو هرس صد او ليب لا لا موم او يولا ولا لو نيمل باتي جيخالوك ايجا دنگا باتي و اذ انجيناكم cheikh ibrahim ne faqaratu ma jàng ko ila xisbi wa isa laqu kon loolu mbuutam moolana alxaaji abdullahi la jàpp ko dégg nga ko laayab inna allaha la yastaxyi ba ca wa isan jaynaakum dégg nga mbuutam moolana alxaaji abdullahi la boo fekkee yaa ngi dox ci safari baay radiallahu anhu ci tukki moolana cheikh ibrahim booy dox ci lii rek di ko faral di laajte da nga xam ne bàyyi mbuutam tukkim ci mbuut yu wér la daan tënku moo tax mu waxoon oustaz Baraam ne ko uraana nasiru gi ma waxoon ci tàmbali ba wal xarakaatu kulluha bi iznin sarixin min alxadrati allati taalamuuna amraha wa najaaxu muxaqaqun dégg nga bàyyi ne waqaala mu ne ma sama bàyyi mooy wax ak ci digg géej gi ne ma samiatu dégg naa ma qaala la wax la wax na la ko axuuka ka mbokk ma alxaaji aboubacar dégg naa lim la wax de waaye nag foofu liñ fi xasaf mooy waaye lim la wax dëgg la wa ana taman adhabu maaka maa ngi dem ànd ak yow ilal Hijaaz jëm Hijaaz 1922 la alxaaji Abdallahi génn àdduna lii mi ngi am 1937 nga xam ne kon Mawlana alxaaji Abdallah la bàyyi waxoon izan sarafal waaruuna an dafni jussati baqiitu bihi axyaa li yowmi liqaayi te loolu mooy li wér bis bu robkat yi robee dégg nga ko pare ba pare ci suma koor ba pare ci suma niw ci suma jëm keroog laa dàqa des ak di dund ba keroog bisub dajee ba kooku Cheikh Ibrahima Niass rek laa dégg mu wax ko mu ne bàyyam tegal ko ci ne ko euh, de moom bi mu ko waxee ne ko maa ngi ànd ak yow dem Xijaaz Cheikh Ibrahima wax ci xalam ne waaw jan wax la son bàyyi di war a wax ne moom la ma son mag wax alaaji Aboubacar ba yàgg bàyyi ne qultu ma ne لعله امتنا صح قول الاخ موي واخي سما مبوكما المذكور جدي جون تود موي ا الحاج ابو بكر لان لاكو وخون داف كون لي علي يغلب علي ظني نيال نما لو خمن نوتنا سما نجورتو لما فوق من الحاج ابو بكر امام موي انك نك ياو ابراهيم اذا اهمك امر سلهتي لي امبير سي يونو تكي وي ستلقى قلسي غا دجي والدنا سونو باي rahmatullahi taala alayhi yal na yërmande yàlla nekk ci moom mu ne lii de sama mag Aboubacar waxoon na ma ko xam naa lii lay wax kon Cheikh Ibrahim ne walam nazal dañuñu bi hamdillahi ci sant yàlla na siiru du dox fi sihatin ci wér wa afiyatin ak dégg nga ko mbax jàmm wa niamin ak xéewal min allahi ci yàlla laafiyatin ya dayu boole taftal ko wal baxru te géej ga rahwun ma dal wal jaww te jaww ji saxwun ma nga set wecci ilaa an alqat jëm ba sànni Canada bato bii ñuy wax bato Canada marasiyaha ay lankaaram bi Las Palmas ca Las Palmas foofu fan mooy Las Palmas mu ne asimatu Espagne mooy dégg nga ko capitale bu Espagne loolu kañ la xew baada tuluwi shamsi gannaaw fenku jant yow ma sabti bésub samedi a thamina achara min a chehri fukki fan ak juróom ci weer woowu nga xam ne ci lañ départoon kon bu fekkee ne dañoo départ àllarba <clears throat> dégg nga ko dem ba samedi alxames ajjuma samdi dégg nga ko macha allah euh, moo ngi noonu dox nañ lu yàgg yàgg yàgg yàgg dégg nga Cheikh Ibrahima Niass nag radiyallahu anhu maanaa li ko nit war a xéemee bokk na ci moom sëriñ si mu fi fekk Cheikh Omar Foutiyu radiyallahu taala anhu moo ci dàqoon a tukki Cheikh Omar Maulana Cheikh Omar Fouti moo ci dàqoon tukki sëriñ si bi fekk te Maulana Cheikh Omar ci réew golf bii rek la em bu dul loolu Makka ak Madina la dem Maulana Cheikh Ibrahima fu sëriñ bu taxaw Espagne Angleterre dégg nga ko Italie demet Chine yu mel noonu moom lañ kam ci sëriñ si tey nag la sëriñ si di xëccoo tukki dégg nga ko waaye Maulana Cheikh Ibrahima tukkim dafa uti tukki ñeneen ñi bàyyi na ma egg fa. walam nunsil dañu dañu ñu fiihaa foofe dégg nga ko ca Las Palmas waaye li an naa ngir ñun taarad naa gaaral nañ sax bëgg lin nuzuli ngir wàcc fiihaa ci Las Palmas bëggoon nañ fa wàcc sax fa qaala lanaa daal di ñu wax saaxibu safina borom gaal gi ne ñu in aradtumu nuzula bu ngeen bëggee wàcc falaa yusxibukum bu mu ànd ak min min addarahimi ci ay dërëm maa yazidu loo xam ne dafay ëpp ala miati franc ci téeméeri dërëm li anna al xasba naka agresseurs yi huna fii kathirun lu bëri lañ waaw bu fekkee da ngeen a bëgg a wàcc pour loolu de it dana ma fàttali man bi may wàcci euh, Sierra Leone ci fi nga xam ne mooy capital ba macha allah fekk ñu ngi jëm Nigéria ñu may ñu ñu wàcc war dugg ci dëkk bi ñu xool gis ne boobu macha allah fii xamuñ fi dara waaye may nañ ñu ñu mën a dugg ci barab def nii daa nga ko dugg fii lekk ak yu mel noonu ndeysaan bu fekkoon nga jàng tukki Maulana Cheikh Ibrahima ña yi rek radiyallahu anhu tak te mu wóor la ne ci bàyyi ngay tukki yow ah sa yaram du mën a ñàkk daw nag ndeysaan bàyyi ne biñ ñu waxee ne agresseur yi dañuy wax ah bàyyi bàyyi bàyyi radiyallahu anhu bàyyi bàyyi radiyallahu anhu moom moo bëggut na wàcce rek waaye Cheikh Ibrahima ñu ne ko ay agresseur moo fi bëri bu wàcc xaalis baay na fa tarak nan nuzula ñu daal di bàyyi wàcc bil kulliyat ci lépp bàyyi loolu jaaxalu ko ah radiyallahu anhu koo xam ne bi mano gi wàccee ci néegam gi dégg nga ko bi mano gi mooy dënnu gi wàccee ci néegam gi Kawlax yëpp dawrit riit ne ñàkk nañ Ibrahima Niass ñu fekk ko ci néeg bi mi ngi dëgg mu di jàngal Quran bàyyi mano gi mën a leen man la waaw <laughs> ah, man la xam nga ne kooku radiyallahu anhu ab sàcc jaaxalu ko wala ab agresseur de dégg mu ne wa baada salaati zuhri gannaaw jullik tisbaar nag zayalat zayalat la daldi di waranjiku daal di jàllarbiku asafinatu gaal gi qasidatan di aji jublu nak nahwa dar al bayda fa xenu fa nga xamne moy daru bada maison blanche ci maghrib wa ba'da salati subhi gannaaw julik suba yawmal isnayni bisub altine alqayna la ñu sànneeku bil biha galgi gaal gi almarasi ay lankaaram ca teeruwaay ba fi hana in ci dégg ko ndànku wa sururin ak mbégte dégg nga ko calañ calañ calañ calañ fa daal di xegg dégg nga wa zallal naa ñu daal di wàcc nag yowmal ithnain bisub altine na tanazahu di promenade fiiha foofa ca darul bayda wa talaqaana dajale nañ ma baadul ahbaabi lenn ci soppe yi attijaaniyin yooyu ko jug tijaan waa këram naa teral ñu ba ñu ne ko Cheikh Ibrahima lañ lan la defal ci teraanga mu ne wa min jumlati ikraamihi lana bokk na ci mbooloom liñ ñu teralee dégg nga ko an araana ñu wan ñu bulxatan marakis dallu marakish mooy mooy bulxa dégg nga wat dégg nga kaanat boo xam ne nekkoon na li cheikhina ñeel sunu sëriñ xaatimil awliya kira aji kaste wilayatul muhammadi mawlana abil abbas ahmad ibne muhammadin tijani radiallahu anhu ñu wan ñu dalli maraakisam ya xutuut yi di ñu wan ñu googu noonu jàppal ne dañ ko koo jox Cheikh Ibrahima lépp luy ndonal Seydi Ahmad Tidiane bum ci egg rek jox nañ ko ko ne ko yaa am yaay boromam mu ne wa xutuut yi di ak mbindi loxoom jox nañ ko Maulana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu man mii di wax ak yow nit dem na ba Maroc tiim karnaasu Seydi Ahmad Tidiane di ko foto di ma di ma yónnee ma ne cey bàyyi bëri barke demuloo Maroc ñu lay jox mbuuti Cheikh Tidiane yu mbind ak ay loxoom. dégg nga ko di la ko yónnee bu ma ko Cheikh Farba laaj nag dégg nga mu ne li anna haada sayd <laughs> naka sang bii kama axbara nii comme ni ma solooyee ni ma ko nettalee bii ci moom an nafsi ci boppam abu baayam kaana nekkoon na min ashaabi cheikh al ci taalibé cheikh Tidiane yi nga xam ne ay xaas la ñoon ñu ne ko kan la bàyyi na bil asaf am soori bu la ara waxee bil asaf rek mooy am soori waaw pardon waaw لم أضبط تكما اسمه ترى وصلينا الظهر ندال جولي تسبار في الجامع الذي تجاو جمع جنا قمنا بناه تبخناكو السلطان أبو عبد الله بور بن يوخ أبو عبد الله سيدنا محمد بدار البيضاء تدار البيضاء وهو جمع جوجنك عديم الشكل أجي نكلم نند في الجودة تتار والإتقان أغرفتل والحسن أغرفت بطي والإتساع أغياتو بعد يبرفت لي في رواية دنيو أتي أي مقام شرفت dégg nga kon nag Maulana Cheikh Ibrahim fii ngay door di gisee ne mbuuti Maulana Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu yi nga xam ne moo ngi ko bàyyi woon gannaawam yëpp Maulana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu moo ñëw donn ko kon nag dëgg-dëgg nañ am ak fii yéen darsu bi rek bu ñu ñëwaatee continuer ak dégg nga ci lan la bàyyi jëlee foofu noonu ba keroog muy àgg faas dégg nga ko ba pare phase ba da du continuer yal na yàlla may dégg topp li ci neexu te dégg rek ci ko doon jàngaleel lu ci neex dégg nangeen ngeen xam ne ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass la radiyallahu anhu ndax mooy tëbbe nekk ci làmma ñu di wax jiitu ci dégg yi di déglu lépp kon bu boobaa dafay daal di rafet lu ci mën a xew rek in uridu illa al islaaha masataatu ma tawfiqi illa billah seen mbokk Ahmad Dame Niang la Sénégal bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñun suñu yitte mooy Baay Barham ñëw leen ñu way baay. la ilaha illallah